asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare yéen waa groupe bale bi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ñaan a di ko sàkku ci yéen. wax dëgg yàlla suñu groupe bale moom lépp benn la bokk ndey bokk baay yaay njóoba mi moo ci gën a doon mag te gis nga ko dafa wàcce boppam ba tolloo ñun muy aw mi muy maa mi muy faatu ma muy yaakeen ñoom ñëpp ñooy suñu yaay. ay làpp amuñu ko dafa lëndam kay timis kenn du ñemee génn waaw. xale yi tamit nee nañ ay ay kii ay matériels yu bale. bëgg nañ ko bëgg nañ ko li commencé ci bale. radu burwet siwoo naanukaay galaasir bu def kafe kii tarmus ak i kaas ñetti toqi kaas yi moo fi am. tame mbalit bi gis nga ko nii sànke lañ fabriqué def ko ci ab kii nu mu tuddati lii moom lañ fabriqué def ko def ko noonu def ko kii tame bëgg nañ ko ci kuñ ci jàppale bu baax a baax. léegi nag lii suñu soxla lu ñu liggéey. alxames ku liggéeyiwut ku bale jiwut yaa nga ca dàgga ja boo jógee ca dàgga ja yaa nga ca dara bi ñoom dara moom yaa ma gën a xam fii moom doxatu fi boo demee danga koy wanteer di ko toog di xoole léegi nag daal nañu dimbali ci ñi ndax nit ñaa ngi liggéey saaboo fi madaara fi odd sewal fi yooyu yëpp nag amuñu ci dara ñu ngi foo foosi mbedd yi gis nga ko nii tonn kaay mbalit amuñu ci dara ñetti bale yi lañ yor ku bale ba sonn ku bale ba sonn jox sa morom mu dem bale ak fi ñu tuur mbalit amuñu poubelle amuñu dara suñ mbedd yi ñu sëkkal nu ko lamp yi gis nga ko ni koñ bi fii ba fii daj benn poto lamp bee moo fi nekk te piil bu baax sax nekku si yii yëpp benn lamp tàkku ci di leen wax rek suñ mbedd yi bëgg nañ kuñ ko sëkkal ndax yi day taa boole foos yi ci mbedd yi yëpp xeleeku yooyu moom bëgg nañ kuñ ko sëkkal waaw ndax nawet bi moom yëpp ay ànd bëgg nañ ko ñu ko sëkkal daal. mbedd yi ñemeetu ñoo yónni gone yi. waaw lamp mbedd yi. kenn ñimeetu fee yónni sa gone bu wenteel xasee passé moom jeex na. Ah, waaw léegi bale yi nag gis nga ko nii lii la yor ku amu fi dañuy awante bale yi ku bale ba sonn jox sa moroom dañuy awante bale yi gis nga cafetière bi awa taraawore mu baax mii tey moom itam mu sell mii moo ko fi indi moo ma kaas yi tey dañoo tàngalal kafe ci biir këram ba pare amuñuy kaas amuñu cafetière amuñu dara lii nii tamit moo ko moom affaire bi defoon ndox mi mm, bool bii di tege maa amigéey moo ko moom ñun dañuy àbb rek suñ dara mëtul bëgg nañ nag ku ñu dimbali ku ñu jàppale sëñ Saaliwu ñang nag yow lañ ko yow lañ ko diis yow ndax yow moom ñang dangaa nekk ci koñ bi lu baax rek ngay dox moom ngay dox moom ngay wax sa njaboot comme njabooti nit ñi comme si njabooti nit ñëpp ak sa njaboot nga yemale mag ñëpp ak say mag kër nga yemale xaaji woo kenn yow ñang gàcc ngaa laa ma yow Saaliwu ñang jërëjëf sant nañ la gërëm nañ la waaw bëgg nañ tamit leer na looloo ma gënoon ñor sax benn benn benn liggéey amuñu ko nekk nañ ci usine yi ba fuuti nan noo ngi nii tëluñoo sangu tëluñoo diwi fajar la ñuy xëy dem usine ba xaaj guddi la ñuy ñibbisi xamuñu suñuy xale sangu nañ xamuñu fóotal nañ leen xamuñu leen suñ kër duñ fa xam leen bu bëccëgee xaaj guddi la ñuy ñibbisi amuñu benn liggéey